jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte nuñ koy defee saa su ne mbokk yi démb moo nekkoon le premier janvier deux mille vingt ci at bu bees ñu dugg ci Kédougou Niang production woon ñu fële ci arène national boole woon fa ñaari xale yoo xamante ni ñoo fa waroon daje far yàlla dogal lii xew ci làmb ji xew ci comme ni ngeen ko déggee mu dox ci diggante moori Cargo ak Cheikh Super Jamono. mbokk yi ñu dem ba ca bisu làmb ja kii di Cheikh Super Jamono am blessure blessure bi nag adversaire am nee na dafa ñëw ba ci làmb ji gis état de forme bi adversaire bi am mu gaañ boppam jàpp ma ni mbër dina tey di gaañ boppam ku jël avance waaj ko ay fan ànd kook say mbokk ñëw ba ci làmb ji lii xew-xew ci waaye loo xam-xam ma dem ma dem gën laa xam boppam looloo waral wasaare làmb ñëw fii ci géejawaay seet si ki nga xamante ne mooy Cheikh Super Jamono xool état de forme ak nan la waajale woon bis bi ak li ko arrivé nan la ko dalee Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw bisimilah rahmaani rahim naa ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur maa ngi fay bu baax a baax waaw. Super Jamono démb nga doon waajal bis bu rëy yow ak Mori Cargo noo waajalee bis bi. waaw ah, bis bi kon ni doon pare combat yi lañ doon paree ko lañ ko paree rek bi def si réew sax ndax combat boo jël depuis daaw biñ ma woowee bi ma sama président woowee ni ma combat bi am na date mun deux mois ma nekk di liggéey arrêté sama liggéey daj lu nekk di dem diin ya di ànd ak sama mag sama papa Alioune Seye 2 ma fi yaakaraay may ànd ak ñoom di dem diin ya di jóge diin ya di dem si per Gomez lu jógee si Père Gomes di ñëw contact muy liggéey trois séances si bi liggéey lu metti liggéey dama liggéey ba jeex tàkk jeex boo xam ne jeexut doole la amaana. combat ñaata weer nga ko préparé. boo xoolee deux mois la bi ma sama président di ma wax ne ma combat bi am na date ay deux mois. Ah, avance bi combat bi taxaw na depuis daaw. combat bi taxaw na depuis daaw. mooy entraînement di maintien mais bi ma sama président woowee di ma wax combat bi am na date loolu mën na deux mois. ak léegi nii ma koy pare waaw. bi ngay jël sa adversaire xam nga ko Mori Cargo. non xam naa ko ni ndax mbër la quoi xam naa ko mais bu ma koy jël dama ko jël pour ratifier si li ma jugee a ak bis Bismi fekk dama ñëw man ak Bébé Bismi amaana xët-xëtu làmb jàpp ma jàpp ma si musique carrément gàcce ngaalaam boobu daanu ma ma ñàkk par mu ne kër googu mu koy jël keroog signature ba dégg na li ma ko wax dama ne ko dama la ko ñaan góor nga man góor laa bu arbitre sa tànk bu mu arrière man sama tànk mu arrière. billahi li ma ko doon yéen sax may oh, sant yàlla quoi. léegi ñu dem ba ci bis bi. ñëw ba stade jot ngaa départ ba ñëw stade. déggoo man ñëw naa ba stade. donc ni ma war a tuus bi ma waree tuus ma la ma dal dal na ma mais dama ko doon ñëbb ba ma demee bay tuus. la gars yi ñëw jox ma sama licence bindal ma kayit naa ma dem CTO ma ne leen man mën naa bëre lii garaawul mën naa ko bëree man yàgg naa bëree blessure combat yu gën a métti laa bëree ay Mori Kargo ay Abu gën a dar bëre naa fee Abu Ndiasse bëreeg blessure te ko man yàgg naa bëreeg blessure ba may bëreeg Giro Seras blessure laa am zoom bu métti te billaahi wallaahi talaahi kenn xamu ko lu dul suñu président maam zoom bu métti sa zoom moo gën a garaaw mais amaana li am démb. ndogal la loo xam ne man bëgguma ko man mi ci ni trois blocs billets si ngoon gi ma woo sama président ne ko dama bëggaat ay billets am lu mu wax ne ma defal nii ak nii defal nii ak nii mu génn pour dem esaat man li ma dal. léegi léegi dama bëggoon xam. li la dal parce que sa adversaire nee na da ngaa ñëw ba ci làmb ji gis état de forme am ni mu toll moo tax nga nga ragal dem jam sa bopp léegi dama bëgg nga expliquer ma carrément li la dal nu mu la dalee. kooku su waxee loolu dafa waxu waxu man mënuma jàppee wax boobu sa waxu nit la ndax maak moom signature ba lañ nekk. yaa may dégg su ma ko doon daw wala man ma koy sóoraale état de forme am kon xanaa gaañu naa bu yàgg wala ma jéem a fabriquer leneen lu yàgg. mais defuma loolu kooku lan laay daw si moom kooku ñu ko ëpp laa bëreel ay Boyz Life bëreel ay Abou ay Guiro ki ma mujjee bëreel Scorpion moo ko ëpp moo ko sut kooku awma lan laay daw si moom su ma naree def loolu ma bàyyi làmb man làmb laa am sam papa dafa may dagal billet pour ma dem tukki ma ne ko dew ma làmb laa yaakaar man làmb du ma ko caaxaanee ku taxaw di wax Cheikh dafa daw combat rek da nga xamul li ngay wax mais ñu nekk si làmb xam Cheikh Super Diamono xam nañ ne man lu nduroog yàq combat sax du ma ko def man dama génn sama buntu kër bi may génn fekk ma ngi yor begg naaw naaw ak béjjén yi ma yoroon ak affaire yooyu xaw ma nag nu mu demee ndax xam naa li ma ko mën a jàppee instant bi sama xel ñëwee damay jàpp ne àll léegi bi may fippu di kii fekk man sama ngemb laa doon jam xam nga ak ni ma génnee suñu kër après xataraayu xam nga waaw dugg sama biir oto sama papa départ bi mu déparé ba ci kanam après laa sentir sama yére bi ma soloon ma jiital gis deret mm. ma ne waa nu mu demee nii moo ko sama xel quoi. ma xool sama loxo gisuma sama loxo takk ma gis si laa njëkkee gis fii nii. Mm. mu def genre bënn ma ne non kon man dama gaañ sama bopp. Mm. ma ne non lii garaawul fekk sama mag waxtaan mu ngi fii ak sama mag góor boobu premièrement bi dama ko nëbb nii ba ñu gis deret bi. léegi eh, bi ma ko nëbee nii ba si yàgg laa gis sama tànk bi di jam. di jam bu baax ma ne non lii ma nekkul benn kii si laa defaatee nii tibee bi ma soloon ma gis fii fuleeku ma génnee yàpp fii nii ma gis mu def genre turu. mu defee loolu ma kottu sama mag bi góor a waxtaan. ma jooy ne ko yàq naa sama làmb ma jooy am lu ma metti mais ma ne garaawul nañ dem man su ma demee naa mën a dox rek su ma mënee dox man mën naa ko kamufule si laa ñëwee stade ma ñëw ba stade uniforme mbooloo boo xamante ne kenn mësu ko indi arène nationale. billahi wallahi taalaahi mobiliser lu ma mës ta mobiliser sama grand combat bi laa mobiliser am na ñoo xam ne bi may génn ñu ngi des si bunt bi ma ñëw ba stade ku ku ku bëgg yàq làmb dina ñëw ba stade naan mu ngi yàq làmb ma ñëw ba biir stade suñu entraîneurs yi nekk fa di kii yoog après gars yi ñu ngi doon coow ñu naan damay bëri ñu may leen man damay bëri carrément damay bëri. après xaw ma nan lañ def parce que kii bi jot si euh, docteur CNG kii bi euh, ardo mu ne ma naa ñëw foofu mu ñëwee foofu ma ne ko noonu lii garaawul lii garaaw parce que gars dañ doon wax elestoro ma ne leen non su ma si defee elestoro arbitre après da koy gis elestoro kenn du ko bëre waalee kon xam nga ne ko bëgg na bëre ma ne leen garaawul ba am maîtriser ko ma dem ba dem samay supporters yëngal foofu di dóor ay gauche droite samay supporters ñu si dara. ñi ma àndal xam na ne benn instant dinaa soox mais lépp man maanaa maa man nee naa galaaj yi dama ñëw ba sama cumukaay ne leen galaaj yëpp gérer leen ko taf leen ko benn côté rek man dinaa mën a bëre ndax bugguma après galaaj yi may soteekoo su ma ko sottee ko affaire bi mën na infecté wu mais dafa dafa dafa rëy quoi man après ma ba hôpital laay soog a xam ne man ñii sax dama doon def si risque ndax maa ngi doon fipp ne damay bëre médecin bi ne ma yow foofu boo fa defal doon trente minutes sax mën nga dee si làmb ji ndax dafa jël benn weñ dugal ko si mu ko dugalee affaire bi toll na fii turu bi xam nga man it damay sant yàlla mais man nekkuma ku yàq làmb man làmb laa yaakaar làmba laa yaakaar damaa bàyyi lu bëri ngir làmb. en fait bi ngay jam sa bopp euh, lan la àll wala ay xabtal la wala quest lan moo xew carrément. man ba léegi mënuma laa wax lan la man affaire yi comme film si man. billaahi yàlla bu ma yeewu suba. billaahi wallaahi taala affaire yi kon film si man. bu ñëwee si boobu combat bi sama président daf ma woo ne ma sëñ Maodo nee na fekkee am nga koo mën a yónni dem jëli say blouson ma ne ko non jarul ma yónni kenn samay blouson maa ko doon jëli ma dem kër sëñ Maodo ñaa jëli samay blouson mbër yi waroon bëri suñu école sax maa leen jëlaale seen i set mais xam nga lu man mënu ma comprendre affaire yi damaa am lu ma metti man maa gën a am lu ma metti dama entraîné sama combat lu ma mësta entraîné toog arrêté sama liggéey doo ma fenn kon xam nga ne kooku man su ma gisee nit ñi di wax yenn wax yi sax damay am lu ma métti quoi mais damay sant yàlla xam ne man jullit laa doomu jullit laa damay sant yàlla rek xam ne man lii dafa waroon dal mais Mory Cargo bu mu wax loolu moom moom warul taxaw naan ay man lan et kooku ban état de forme la yor fekkee xa ñiy suivre làmb nañ déglu li may wax bu baax ku seetaan Cheikh ko Cheikh Super Diamono man bëri naa quatorze combats ku seetaan ñi ma mës a ñëpp. sama président wa ngi nii li may wax fekkee amul na wax musuma jël adversaire ñu ne ma utal nooy neex damay jël adversaire mu ne ma kii nga jël baaxul ma ne ko président kii maa nga ko jël dama koy daan mu ngi nii après soo ko laajee dina la si wax musuma xool lu nooy si làmb. ñaata combat nga bëri naa treize combat. ñaata victoire. am naa dix victoire deux défaites benn défaite par avertissement muy maag bébé bis mi. Hmm. kooku dina yàq làmb. xaw ma sax dañuy yaakee làmb xaw ma ko sax mais damay sant yàlla xam ne man doomu jullit laa rek ñuy wax dama leen di bàyyi ñuy wax mais amateurs yi seetaan làmb xam nañ seex day yàq làmb wala seex du yàq làmb man xaw ma sax yot aw ma sax reewande boo xamante ne promoteur wala ménageur di gis na ko si man xuma laa nag man naan maa ngi yàq làmb man démb dama doon sauver sama bis. damaa dem si docteur bi après ñaan ko ne ko ngir yàlla ginante bi jàppale ma te yàlla tax. mais mais Cheikh moment boobu parce que aal nga doon waxee waaye sa santé mayetu la pour nga mën a bëree. waaw dëgg la mais instant boobu man gisuma lu tamit ma bëree ndax instant maa ngi sóoraale après waxu nit ñi. maa ngi sóoraale waxu nit ñi ak mbooloo bi ma indi géejawaay dépp géejawaay bépp génn ñëw soutenir ma xam nga neexul waa man man la gën a metti billaahi wallaahi talaahi di wax sama papa suñ Modou Niang ne ko lii man la gën a métti bu parewaatee bu ma yàlla mayee tan ma bëreel ko te du ma fay dara. billaahi wallaahi taalaahi ma bëreel ko te du fay dara. bëgg ngaa bëri Mori. billaahi wallaahi taalaahi su ma bëreewul ak moom du ma am soxla ma neex. billaahi Mori Cargo su bëreewul ak man su ma tanee dama koy woo ne ko kaa ñu bëri xaalis xaalis boo bëggee ma fekk la sa koñ. si ñuy leer laa wax de billahi su ma tanee man maay ut numéro ne ko carte téléphone boo bëggee nga ñëw nga wax ma fu ñuy daje ñu bëre man ak yow xaalis xaalis. kon yow jàpp nga ni yaa amoon Mori Cargo quoi. liggéeyu ma entraîné wu ma dama doon entraîné ren pour sama yeneen adversaire mais entraîné wu ma Mori Cargo dama ko jël pour di si lu ma jugee ku xam Cheikh Super Diamono man ay Mori Cargo doo wax Mori Cargo ne Pambaay doo wax Mori Cargo ne Mbaytin doo wax Mori Cargo ne Eumeu Sène Junior ñun ñoo la mën a wax Cheikh Super jamono mais dara bu amee ku nekk day indi bu nekk di wax mais man xam naa Modou Cargo moom xam na xam nga ñun bëri gaa yu xamul ñooy nekk di wax rek mais ñun xam bëri xamante nañ ñu biir bu baax. billahi walaay taala Modou Cargo bu taxawee naan ay man état de forme moo ma jaaxal man ma yàgg a bëre ñu ko ëpp doole sut ko bu arbitre damay ñëw bëre seen kaw kon Modou Cargo ban état la yor bu ma jaaxal Modou Cargo bu mu simee ko ndeysaan aalu mbëre ngi noonu waaye jaam ak pexem yàlla ak dogalam ban message nga am booy lancé waa CNG bi ak say supporter rek ñu demee ñoonu waaw samay supporter dama leen wax ne leen luñ bëgg benn bëre rek nañ jàpp ne man maa leen ko gënoon a bëgg ndax ñoom bi may ñëw si ñoom di di wéy maam Cheikh Rafaal Cheikhou Bamba boobu li ma dal dal na ma te boobu maa ngi ñëw di camoufler mun ma ñaanal yàlla yàlla may ma tan ma delluwaat fi ma nekkoon man làmb laa am ku bàyyi tukki gérer làmb kon xam nga ko kooku làmb làmb sama papa dafa ma mere ndax làmb bi may kon man xam nga ne su ma naree ne làmb kon man kon góor gen la man xaw ma nu ñuy ragalee sax bay sóoraale mbër xaw ma loolu. billaay walaay taalaay sama président yi damay jël ay combat yoo xam danaan ma yow da nga am fit ba ma ne ko président man man xooluma lu mooy si làmb ndax damaa bëgg a toll fi ñoom Modou Lo egg ñoom Balla Gaye fa laa bëgg a egg te làmb boo bëggee egg foofu doo xool lu nooy da ngay bëreeg ñu la ëpp doole bëreeg ñoo ëpp doole bëreeg ñoo xamante ne ñoo la mun fopp nga dem daan leen loolu mooy tax nga nekk ndaanaan waaw di di sant yàlla bu baax xam nga di jégalu samay supporters di leen wax affaire bi ni mu demee nii neexuma neexuma mais sant yàlla la tamit xam nga sant tamit ñi si jàpp si combat bi bëri na ñu si jàpp ku si ni sama papa Bari Sey dafa jàpp si côté bépp wàllu ñaan ak yëpp sama yaay tata Marème xam nga waa Fan ok dañoo mobiliser mobiliser bu rëy ñëw fii sama goro yi waa Fan ok waa Gol Tappé gis naa seen mobilisation bi ñu def démb ñëw jàpp si combat bi sama soxna aw ma fayam sama yaay sama ñoom rakki ñoom mama Ndiaye ana jëkkëram Ousseynou gis naa ni ñu siy jàppee Bokar sama papa Périse kii. du ma ko wax dara dama koy bàyyi yàlla kii lenn rek laa ko mën a fayee muy man ma dégg daali yi si làmb te moom xam nga ne man maa ngi si yoon bi ndax lu ko laaj muy entraînement muy lépp maa ngi koy def loolu laa ko mën a fayee mais kii prési pare si laa muy sama papa prési kii aw ma lenn lu ma ko mën a fayee may ñaan yàlla rek yàlla may yàlla suturaal may ma gudd fan moo yàlla may gudd fan li mu si làmb man naa ko man man sama jëm bopp man naa ko indil. xam naa ko moom xam na li may wax parce que mënu ko ñaanal kii xolam moo tax mënu ma ko ñaanal di santaat yàlla bu baax sama gars yi ñi nga xamante ne day metti ñu nekk feek man ñoom moo di Gisee ñoom Saliou ñoom góoti ay soxnaam góoti xam nga sama booy yu ndaw yi ñoom xëm ñoom Baata ñoom Bébelaay ñoom Pape Malick booy mafia fokkati bi xam nga booy yëpp mafia fokkati bi ñëpp su ma limee damay juum maa leen di jégalu di leen wax affaire bi neexuma man la gën a metti xam nga di wax Youssoupha Touré laa tamit gis naa taxawaayu ñu muy ñu may jàppale Youssoupha Touré laa la lumière du Sénégal dañ may jàppale bu baax mook Omar Gueye ama seen fay Youssou xam nga di leen wax ñu gën see jàpp rek amaana lii suñu borom noonu la ko bëggee woon mais damay sant yàlla rek xam nga di nuyu tamit Ousseynou di ko wax maa ngi gis nu may jàppale bu baax a baax ak brokar bu Pikine jàpp na si combat bu baax a baax a baax di nuyu sama entraîneur Père Ngaylum Père Malo Père Sarsari Amady xam nga sama pré ki sama ménageur papa Père Djili euh, suma entraîneur kii euh, Père Gandhi am di leen wax maa ngi jégalu bu baax a baax jégalu képp nga xamante ni woon ñëwoon nga esaat dagg sa billet pour seetaan Cheikh Super Diamono te bëréew di leen wax man la gën a metti dem dama tëdd ba fajar jug man kese di jooy jooyu metti ndax man affaire ba ma jàpp ne sax ay gént la si man. dafa santal yàlla rek parce que lu gën la. yàlla moom lu gën rek lay. yàlla ndax xamul tax jullit laa. amuñu leneen lu loolu. munoon naa dem bëre leneen am. mais man dama gëmoon ne Mori Cargo man nekkul Mori Cargo man laa war a sax si jour bi man après maa ngi doon xool lii sama kanam mais xooluma Mori Cargo mais di leen waa di sant yàlla bu baax di leen di kontaan tamit si yow xam nga ak sa caméraman bi mm. waaw bu leen neexoon yaa ma gën a xam mais def ngeen acte bu rafet xam nga ñu lii la jullit di jëriñ moroomu jullitam waaw di sant yàlla bu baax tamit waaw. noo gisee wasaare làmb ci làmb. non wasaare làmb ba Europe. dama koy seetaan. Mm. émission yi ngeen def Europe. Mm. yooyu yëpp dama koy seetaan. waaw man dama koy suivre bu baax ndax am na benn am na seen kii bu sit bu nekk Europe suma ma jumul waaw damay seetaan ñoom duubul ñoom kii boog euh, mbër bi nekk Grand Yoff ñoom mobile ñoom dumbul ñëpp dama leen di seetaan te si wasaare làmb laa koy seetaanee site bu am importance la man moom dama koy suivre bu baax am na yu bëri yoo xamante ne su ma koy seet gisuma ko sax foofu laay dugg dama koy gis xam seen liggéey rafet na quoi dëgg yàlla car macha allah ma leen di ñaanal rek yéen ñi nga xamante ne yéen si nekk di si liggéey ak seen njiit ngeen dem ba nekk télé yu mag a mag mag tamit ngeen amal